sëriñ Modou Mahmoud Mbacke sëriñ Modou Mahmoud Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1905 ci dëkk bii nag di Mbacke Bawal ci dëkk bii nag di mbakke Bawal nag la feeñee jamono nag ci atum 1905 muy doomu soxna Mariama Ba ak Maam Moor Jaara nag magi mag doomu Maam Moor Jaara bii nag di sëriñ Mahmoud Mbacke bi mu feeñee jamono waajuram nag sëriñ Maam Moor Jaara mi ngi ko fayee nag ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di Muhammad ñu koy woowee nag tur wii nag di Modou Mahmoud muy doomu sëriñ Maam Moor Jaara Mbacke magi mag ak soxna Mariama Ba feeña jamono nag ci atum 1905 ci suuf si nag di mbàkke xewar ci dëkk bi nag di mbàkke bawal turandoo ngën gi mbindeef bi nag laataa nag ñuy xuus nag ci ay mbiram ñu wax leen nag ñi mu bokkal nag soxna Mariama Ba ak sëriñ Mamor Jaara Mbàkke nag magi makk ñu man cee ràññee nag soxna Assu Mbàkke bintu soxna Mariama Ba bintu Mamor Jaara Mbàkke soxna Mariama Mbàkke bintu soxna Mariama Ba bintu sëriñ Mamor Jaara Mbàkke soxna maam Assa Mbàkke bintu soxna Mariama Ba bintu sëriñ Mamor Jaara Mbàkke soxna maam Xari Mbàkke bintu soxna Mariama bintu sëriñ Mamor Jaara Mbàkke soxna Daba Mbàkke bintu soxna Mareema Ba bintu sëriñ Mamor Jaara Mbàkke ak moom nag sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ibnu soxna Mareema Ba ibnu sëriñ Mamor Jaara Mbàkke juróom ñu jigéen nag la bokkal nag soxna Mareema Ba ak sëriñ Mamor Jaara mbakke ak moom nag muy seen càmmiñ muy juróom benn ngir xamale leen nag njaboot gi mu bokkal nag soxna Mareema Ba nag ak sëriñ mamoor Jaara Mbàkke nag ñoom ñooy ñan doomu ndeyam ji nag di soxna Assu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Maamun Mbàkke bu Daaru Salaam nag lañ ko jébbaloon Mamoun Mbacke nag bu Daaru Salaam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mbacke Assou sëriñ Mamor Mbacke Sikap sëriñ Hamidoun Mbacke sëriñ Abdul Xafoor Mbacke ak sëriñ Modou Mokhtar Mbacke njaboot gii nag la sëriñ Modou Mamoun Mbacke ibnu Maam Cheikh Anta Mbacke am nag ci soxna Aysatu Mbacke moom soxna Mariama Ba ak sëriñ Mamor Jaara Mbacke doomu ndeyam gi nag di soxna Mariama Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ El Hadji Tàkko Mbacke bu Maam Cheikh Anta Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ El Hadji Tàkko Mbacke nag bu Maam Cheikh Anta Mbacke benn bant nag lañ soxna nday mbàkke doomu ndayam ji nag di soxna maam assa mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ ibrahima dia bokkoon itam nag ci jàmbaari maam cheikh anta mbàkke yi nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ibrahima dia itam nag benn bant lañ am muy soxna bintu dia doomu ndayam ji nag di soxna maam xari mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ moor faati turé nag bu madina turé nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ moor faati turé nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ maam moor turé ak jigéenam ba nag soxna turé doomu ndayam ji nag di soxna daba mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ abdoulahi mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Mbàkke di sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi itam nag benn bant lañ am muy kuñ doon wooye nag sëriñ Cheikh Mbàkke soxna Daba mii nag biñ ko jébbalee sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi am na ñu wax ne nag ci bi muy am gan la ànd ak gan gi nag génn àdduna am na ñu wax ne nag déedéet am na fa nag ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbàkke nag doogu génn àdduna njaboot gii ñu leen tuddal nag njaboot yi ñu am ñooy jarbaati nag wax leen nag waajur yi ko meññi nag ñoom ñooy ñan waajuram wu jigéen wi nag di soxna Mariama Ba doomu Mandari Bala maam Mandari Ba mook Maba Jaxu Ba nag ñoo bokk nag wenn waajur wu góor waajuram wu góor nag mooy Maam Moor ñu gën koo xam nag ci magi mag mook ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñoo bokk itam nag wenn waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññi sëtub Maam Moor Anta Sali Mbàkke bii di Sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke turandoo ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam nag di Sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke nag bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram nag Maam Moor Jaara rakkam nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag la ko jébbaloon booba nag Seexul seexul xadim nag mi ngi njaareem ginnaaw buñ ko indilee nag turandoo na ngën gi mbindeef bi di sëriñ Muudu Mahmoud Mbàkke seexul xadim nag moo ko dalal nag alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbalaat nag waajuróom waajuróom nag jébbal ko nag sëriñ ndaam abdourahmaan loo bi ko seexul xadim nag di jébbal sëriñ ndaam abdourahmaan loo mook sëriñ abdoulahi mbàkke nag di doomam ak soxna maymunatu mbàkke kubra itam nag di doomam la boole nag muy ñoom ñett mu jébbal leen nag sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko ginnaaw bi nag lañ ko jébbal jébbal nag sëriñ Mouhamadou Dem nag bu njaareem mu jàng fa nag xam-xam ginnaaw sëriñ Dem bu njaareem na la fa jóge nag dem sookoon ci loxoy nag sëriñ Modou Dem foofu nag la nekk doon fa jàng itam nag xam-xam sookoon nag soréewut ak nag dëkku maamam di ñooro bi mu jàngee sookoon nag ci loxoy sëriñ Modou Dem nag bu sookoon ba géeju fa nag ci wàllu xam-xam la wéy des foofu nag yor fa nag daara di fa jàngale sookoon nag ak ñooro itam nag soréewuñ te ñooro itam nag dëkku maamam la sookoon nag dafa doon nag jàngee ginnaaw bu mu fa jàngee nag xam-xam ba fa nag ci wàllu xam xam-xam la desoon foofu nag nekk fa yoroon fa daara itam nag di fa jàngalee ba tax na itam nag fu ñu tudde aw turam danañ ca teg nag sookoon moo waral itam nag ñu baree bari nag di ko wax mu nekkit nag boroom xam-xam nag bu géeju woon nag ci wàllu xam-xam ba tax na nag tundu sookoon woowu nag ak ñooroo xamoon nañ nag doomu Mammoor Jaara Mbàkke bi bari woon na fa ay taalibe bari woon na fa itam nag ay kóllëre doomu Mammoor Jaara bii nag ñuy wax sëriñ Maxtaar Mbàkke Awa Géey itam nag jàngal na ko foofu nag ci sookoon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mu jàngal doomu soxna Mareema ba bi nag wéy nag des nag sookoon nag ak ñooro sookoon nag di bërëb nag bu mu doon jàngee ñooro nag di dëkkum maamam di sàmm itim nag ndonal waajuróom di sëriñ maam moor jaara nag magi makk di sàmm itim nag yoon wi nag rakku waajuróom itim nag taxawal di yoonu murita tundu saalum woowu itim bari na nag liggéey bu yaatoo yaatu nag bu mu fa def ngir nag lu jëmale nag yoonu murit nag kanam tourné yu yaatoo yaatu itim nag la daa def foofu itim nag ci ñooro wi nag ak sookoon wi kilifa itim nag bu nekkoon itim nag saalum te bokk itim nag ci yoonu murit ak yow itam na koo lëre ba ci soxna sim njëkk a jëlitim sëtub sëriñ Moussa Daraame la doomu sëriñ Maam Moor Jaara Mbàkke magi mag bi bi mu matee jël soxna lañ ko booleeg nag soxna suñuy wax nag soxna saaxoo di doomu soxna Ramata Daraame soxna Ramata Daraame mii nag doomu sëriñ Moussa Daraame nag bu daaru pakacaar la sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke mook sëtub sëriñ Moussa Daraame bi nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Maam Moor Mbàkke lappe dikki sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke nag faye nag sëriñ Maam Moor Jaara Mbàkke sëriñ Basiiru Mbàkke dikkim faye nag doomu baayam ba Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak soxna maam Busa Mbacke yoraatoon na nag baneen soxna nag bu ñuy wax nag soxna ami Cheikh Ba di doomu soxna Roqi Jooja Ba soxna Roqi Jooja Ba nag doomi Sëriñ Malik Yaasin Ba la Sëriñ Malik Yaasin Ba mii nag moo nekkoon nag caatu ba Jaxu Ba mook soxna ami Cheikh Ba nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna ami Mbacke soxna Kinne Mbacke ak Sëriñ Abdoulahi Mbacke di kim faye nag Sëriñ Abdoulahi Mbacke nag borom dër bi ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tuddal nag la ci am ngir indil leen ak leeral nag ci njaboot googu nga xam ne nii nag ñooy njabootu nag sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di sëriñ Mamor ma Cheikh dul Basiir Mbàkke nag moo ko jël ci ginnaaw nag bu waajuróom génnee àdduna nag ci atum 1943 jébbal ko nag doomu bàyyi waajuróom wa di sëriñ Abdou Latif Mbàkke di ko xamal ne daal na sàmm nag doomam ji sëriñ Abdou Latif Mbàkke itam nag wéyal na ndigalul Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke loolu ci turandoow Mamor Jaara Mbàkke wii nag di doomu magam yar ko jàngal ko ci dëkk bii nag fu ñu tudde sëriñ Mamor Mbàkke danañ ci teg nag la teg sëriñ Abdou Latif Mbàkke doomam ji nag di sëriñ Mouhamadul Bachir Mbàkke di kim faye woon Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moom sëriñ Moodu Mahamoud Mbàkke Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke moom nag guddul aw fan ci ak tuut tànkam nag la génnee àdduna doomam ji nag di sëriñ Abdoulahi Mbàkke ci loxoy nijaayam nag la wéyoon des nag ci dëkk boobu nag di ñooro ñooroo teewulitim nag waajuram Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke nag saa bu masaa ñëw poroxaar dana nemmeeku nag doomu rakkam jii nag di sëriñ Moodu Mahamoud Mbàkke di kim faye nag rakkam nag sëriñ Abdoulahi sëriñ Abdoulahi Mbacke mi nag di doomam sookoon nag la feeñe jamono ñooro nag la màggee foofu itam nag la jànge jamono ji itam nag lu ëpp itam nag ci ak dundam ci réew mii nag di Suisse la koy dund ak njabootam itam nag fa la nekk doomam ji nag di soxna Ami Mbacke bi mu dem kër sëriñ Yunusu Fay nag lañ ko jébbal ndakaaru itam nag la ko yore woon ci quartier bi itam nag di Wakaam ginnaaw bi itam nag la soxna Ami Mbacke jógee nag ndakaaru nag ci Wakaam dem nag Amérique doomam ji nag di soxna Kinne Mbacke ku ñuy wax nag sëriñ Abdoulahi Wilane nag lañ ko jébbal moom nag mi ngi ndaka ndakaaru nag ak nag ak njabootam doom ji nag di soxna maam busa mbàkke doomu bàjjanam nag lañ ko jébbal di sëriñ maam moor Touré moom soxna maam xari mbàkke ak sëriñ moor faati Touré ci dëkk bii nag di Madina Touré itim nag la nekk njabootam yooyu yëpp nag ñu leen tuddal ñoom ñëpp itim nag am nañ nag ak njaboota mu nekk nag ku géejoo géejoo géeju nag ci wàllu xam-xam nag ci dëkk boobu nekkoon nag di sookoon taxawaloon na fa nag daaray alxuraan ju maga mag ak daaray xam ba tax nag jàngal na itim nag ñu takkoo takkoo takku ci yoon wi rakkam ji nag ko nag foofu ci sookoon na ngir mu jàngal ko ak ñeneen ba tax na nag tundu sookoon woowu itam nag xamoon nañ doomu Maam Moor Jaara Mbàkke bii nag di sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke foofu itam nag la des taxawaloon fa ay daara nag amoon fa itam nag taalibe yu takkoo takkoo yokku nekkoon itam nag ku wóllëreeg cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasul poroxaan nag ak sookoon nag soree wuñ woon ba tax na itam nag seex cheikh mamadul basir mbàkke itam nag daana ko gane ji tudde na doom itam nag cheikh mamadul basir mbàkke ginnaaw bu mu génnee àdduna itam cheikh mouhamadul basir mbàkke moo jël itam nag taawam bi nag di sëriñ maamoor mbàkke lappe indi ko nag tuuba jébbal ko nag waajuram nag sëriñ abdul latif mbàkke ba tax na sax ñu koy wooye nag sëriñ maamoor mbàkke lappe ndax lim féete woon nag ci loxoy sëriñ abdul latif mbàkke te booba nag sëriñ abdul latif nag ngi lappee moo waral itam nag doomu sëriñ Modou Mahmoud Mbacke bii ñu koy dàkkantale nag lappee Cheikh Mamadou Bassir Mbacke itam noonu itam nag ni la fobe woon itam nag doomum ji mu fayee sëriñ Abdoulahi Mbacke di ko nemmeeku itam booba nag sëriñ Abdoulahi Mbacke nag mi ngi ci loxoy nijaayam ci dëkk boobu nag di ñooro te ñooro ak poroxaan itam nag soreewuñ saa bu fa Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag ñëwee dana ko woolu wala mu ñëw ñooro nag seet si nag doomam ji nag di sëriñ Abdoulahi munut woon a jël nag sëriñ Abdoulahi booba itam nag mi ngi itam nag ci loxo ay nijaayam waaye sëriñ Abdoulahi na xamal na ma ne tey jii de bu amee dara nag ci yoonu murit ginnaaw yàlla nag dana ko sant nag waajuróom woowu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mus ta ñëw poroxaan nag te nemmeekuwu ko mus ta ñëw poroxaan nag te laaju ko itam nag am njàngam nag fan la toll mus ta ñëw poroxaan itam nag mayu ko xaalis ngir itam nag di xam ne itam nag doomu rakkam la Serigne Modou Mahmoud Mbacke kon kóllëre gu yaatoo yaatoo yaatu nag la séqu nag Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ak ginnaawam itam nag Cheikh Mamadou Bachir Mbacke itam nag sàmm na ko ba tax na nag ak njabootam itam nag tey ji ñu leen xamee ci yoonu murit ginnaaw yàlla itam nag Cheikh Mamadou Mouhamadoul Bachir la ku jaxasoo na nag daana gana ji nag sëriñ Xaasim Mbacke moom ci dëkk boobu nag di ngin ngi néew ci ngan yooyu mu daa amal nag ci sëriñ Xaasim Mbacke ci ngan la moom sëriñ Moodu Mahmoud Mbacke itam nag ku jaxasoo nag borom dër bi la tudde na borom dër bi doom ñaareelu xalifaam bii nag sëriñ Abdoulahi Mbacke nag la ko tudde mook sëriñ Abdoulahi Mbacke itam nag séqoon nañ nag lu bare bare baree bari ñoo jàngandoo nag ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahman Lo xamal nañ na ma sëriñ Moodu Mahmoud mbàkke keroog nag bi ko sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag di jébbal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo mook sëriñ Abdoulahi Mbacke doomam ak soxna may Maymunatu Mbacke Kubra nag doomam la boole nag jébbalandoo sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag ci benn bëcc ngir mu def ci ñoom nag alxuraanul karim kóllëre goog nag taxoon na itam nag ñoom ñaar itam nag ñu sàmm ko mahmoud bii nag ñu doon wooye soxna daba mbàkke sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi itam nag dëkkoo woon na ko sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi itam tudde na daba mbàkke mi doom sëriñ moodu mahmoud mbàkke mi itam nekkoon xaritam nekkoon itam nag rakkam tudde na ko doom ba tax na itam kooku itam moo ko wuutu nag jamono ji sëriñ abdoulahi mii ñu tudde nag sëriñ abdoulahi mbàkke di doomu sëriñ mahmoud mbàkke xamal na ma ne am na benn bis nag mu gana ji nag borom dër bi waaye keroog nag ngan gi nga xam ne nii nag moom la ko borom dër bi defal ngan googu du ngan nag gu ñuy defal nag gone ba tax na itam nag loolu itam nag lu mu jàpp la nag ci turandoom di sëriñ Abdoulahi Mbacke ku jaxasoo nag njabootug Maam Jaara Mbacke magi maggi la ba tax na nag ñu baree baree baree bare nag bàyyi woon nañ ko xel ci dëkk boobu mu nekkoon nag di sookoon li ko dale nag ci sëriñ Moor soxna nag mi njëkk nag wutu waajuram ba ci sëriñ Baara Xorëje mi nga xam ne nii nag ci ak xilaafaam nag la génnee adduna bi mu nekkee sookoon googu nag ci taalibe yam fa amoon am na kuñ fa doon wooye nag sëriñ doomam sëriñ Maam Moor Mbàkke Lappee tudde na ko doom ak yeneen ak yeneen i turandoo nag yu mu am ci tundu Saalum woowu ci gox boobu nag di Sookoon sëriñ Moodu Mahmoud Mbàkke nag mi ngi génn àdduna nag ci atum 1943 ci ngan nag gum doon amal ci doomu baayam nag sëriñ Xaasim Mbàkke moom sëriñ Aafiya Mbàkke moom Maam Moor Sali Mbàkke bi ko gën a jee nag la ko fa am soj nag daaneel ñu teg ci ay fan nag mu génn àdduna sëriñ Xaasim Mbàkke moom sëriñ Aafiya Mbàkke moom Maam Moor Sali Mbàkke moo ko yëgal nag ki toogoon toogaayu waajuram nag di sëriñ Baara Xuraja Mbàkke sëriñ sëriñ baara xuréja mbàkke itam nag sàkku itam ci ki fi toogal sëriñ tuubaa seexul xaddiim di cheikh mohamadul moustapha mbàkke ñoom ñaar itam nag ñu sàkku ci sëriñ xaasim mbàkke ñu jële ko ngin ngi néew nag ci kaolack indi ko nag mbàkke bawal jébbal ko boroomam nag ci armeer yi mbàkke xawar yi cheikh mohamadul bachir mbàkke kon xaritam moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam nag ci wetu waajuram sëriñ mammoor jaara mbàkke ci teewaayu nag xalifa waajuram nag sëriñ baara xuréja mbàkke ak mbooleem nag ñu mu séqal nag mammoor jaara mbàkke moom sëriñ moodu mahmoud mbàkke nag ay 2002 li ko dalee nag ci atum 1943 ba ci mois de mars nag 2019 sëriñ Mamor Mbacke di kim faye waajuram nag sëriñ Mamor Jaara Mbacke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Mamor Mbacke Lappe moo ko wuutu ñaareelu xalifa nag sëriñ Modou Mahmoud Mbacke mooy kii mu fayee nag rakkam nag sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi di sëriñ Abdoulahi Mbacke moo fi toog nag ci mois de mars nag 2019 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu séqal nag turandoo ngën gi mbindeef xelam wi sëriñ Moodu Mahmoud Mbacke sëriñ Moodu Mahmoud Mbacke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal doomam ji nag di soxna Ami Mbacke bi mu nekkee ndakaaru nag ci quartier bii nag di wakaam daana def nag at mu jot mu am bis nag bu mu jagleel nag waajuram nag sëriñ Moodu Mahmoud Mbacke di ko ci fàttaliku ci ndakaaru ci quartier boobu nag di wakaam màggal googu itam nag mujj na ko baax ndax soxna Ami Mbacke nag doomam nag mi ngi Amérique foofu itam nag la nekk nag jamono jii sëtam bii nag di sëriñ Mamor Mbacke di doomu sëriñ Mamor Mbacke lappee moom itam nag mi ngi